asalaamualeykum yéenekaay yi lu ci gën a fës ñu tàmbale ko suñu naataango yi nga xam ne ñoo nekkee ci quotidien yéenekaay quotidien yéenekaay moom tey jile dellu si waat na ci koppar bi nga xam ne suñu réew Sénégal mu ngi ko doon utee foofule ci UEMOA Sénégal moom bu mu demee utum koppar loxo nen la dellu si waat fii ci dëkk bi gannaaw gi moom mu ngi doon ut lu toll ci ñaar téeméer ak juróom milliards yi nga xam ne mu ngi ko doon ut ngir ñu jox ko ñu jàpp nag yi nga xam ne Sénégal weer ci ginnaaw amoon na koppar bu toll ci téeméer ak juróom fukk milliards yi nga xam ne amoon na ko ci marché boobu lee sunu yéenekaay bi nga xam ne mooy témoin moom di dellu siwaat ci reddition des comptes bi nga xam ne kii di ilimaanu jëwrin bi dellu siwaat na ci bu baax a baax ne képp koo xam ne tegoot nañu conc ci dossier yi nga xam ne président Macky Sall moo ko defoon moom dina ko fëgg génne poussière bi nga xam ne moo ci ne ñu jóbbu la ci yoon xool lu ci ne moom mi lee di ñu ilimaanu jëwrin bi wax na nañu génnee dossier yi nga xam ne ñoo nekk ci OFNAC IGE ARMP ak Cour des ñu fëgg ko xool ñi nga xam ne ñoo amee lu ñu def ci wàllum jubal lépp rek ñu gën koo leeral yéenekaay bi li laas dellu si waat jox kàddu ki nga xam ne moo fi nekkoon jëwrin bu baax di Mimi Touré moom mi nga xam ne di théoriser maanaam di jox jëmm li nga xam ne mooy haute trahison moom mu jàpp ne rek élection yi nga xam ne moom la ñu génnoon di présidentielle bi ñu dàqoon ci weerum février lu nu mel ndoddu kii li nga xam ne moo fi nekkoon njiitim réew di Macky Sall lépp loxom na ci lu nu mel nag enquête rek moo mun a tax ñu def lu nu mel waaye moom Mimi mën a nu mel te haute moom am na ci bu baax a baax Mimi Touré di dellusiwaat ci kër yéenekaay bii li réew mi di wax ne moom li nga xam ne mooy loi d'amnistie war nañ ko teggi ngir ñu mën a xam kan moo def ak kan moo rey xale yi nga xam ne gisoon nañ leen ci manifestation yi fi am yéenekaay yu bari yu nekkee ci senegal Sénégal dellusiwaat nañu bu baax a baax ci joxante lenge yi nga xam ne moo amee foofu le ci assemblée nationale ki nga xam ne moo fi nekkoon njiitu jëwrin assemblée nationale di Amadou Mame jox na lenge yi ki nga xam ne moo bees nekk ci assemblée nationale di Malick Ndiaye bi nga xam ne ñu ngi koy waxee El Malick moom mi leen di El Malick moom mu ngi wax ne assemblée nationale bi nga xam ne moom yore na ko dina soppi xar kanamam bu baax a baax ba askan bi nga xam ne ñoo leen fa teg ñu mën see gis seeni bopp bu baax a baax ñu dem ci yéen bi nga xam ne mooy source a moom mu ngi dellu siwaat di jox kàddu gi ki nga xam ne moo fi nekk député di Anta Babacar Ngom mi nga xam ne mu ngi jàpp ne ci benn xaatim bi nga xam ne bind na ko jox ko ki nga xam ne mooy président assemblée nationale ndax ñu woo jëwrin bi yere mbirum jokkalante bi di communication foofu la ci assemblée national ndax mu joxe ay leeral ci liste bi nga xam ne fësal nañ ko ci këru taskatu xibaar yi nga xam ne moom la ñu jàpp ñoom ñoo nekk ci yoon source a ñoom dellu si waat nañ bu baax a baax foofu la ci mbuur bi nga xam ne benn njaboot bu juróom benn nit yi nga xam ne faatu nañ ci benn laq bu métti source a moom di jàppane lu nu mel am na lu bees li nga xam ne gis nañ ko ci boobu boobulee ñu jeexale ko ak li nga xam ne mooy Sud Quotidien bi nga xam ne tijji na xaatim bu rëy bu baax a baax li xam ne moo dem teel yi nga xam ne ñu ngi koy def xale yi rawatina ëmb yi nga xam ne ñu ngi koy gis bi nga xam ne day yàq njàngum xale yi ci Sénégal yéen bi la di Sud Quotidien di wax ne rek gis nañ lu toll ci benn milliard ndaw yi nga xam ne fu mu toll seen i bakkan mu ngi ci xottu gerte jàngeen ngeen